juleem ak salaam yàlla na tabbi ci moom muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ñooñam ak sahabaam yi ak liggéeykatam bu tedd bi ak képp ku roy sunnaam bi bis penc mbokki jullit yi ñu tàmbalee rek aaya bi yàlla di wax ne yéen ñi nga xam ne ne ngeen gëm ngeen na ngeen ma ragal dëgg dëggi ragal te bu leen faatu mukk lu da ngeen a doon ay jullit yàlla yàlla def ay jullit ci sukkandiku ci loolu itam lañuy jokkale sunu xutba rek ci njàngaleem Cheikhul Xadim ni ma leen ko fi waxe woon njàngaleem doy nañu sëkk lépp looy xutba rek mu ngi ci biir ki nga xam ne xalimaam daawul génn mukk ci luy bind luy jariñ jullit ñi waxtu wu ne moom Cheikhul Xadim xalimaam loolu rek la daan bind di ñaax nit ñi ci ñu jaamu yàlla dong di ñaax nit ñi ci ñu jaamu yàlla dong ak topp shariatul islam ni nga xamee ne noonu lañu dikkee ak ceet lépp loo xam ne day waral nga génn lislaam loolu rek la Cheikh Xadim ak nekkam nekkoon fi di ko def di xamal mbooleem murit yi ak mbooleem jullit yi sax seeni wax ci lañu ñu war a ni ñu war a waxe ni ñu war a jëfe mu di ko xam ci ay mbindam xamale ko ci mbindam ngir bañ rekk seytaane mën a tàbbi ci ñun ba feeñal lu weesoog lim digle woon te loolu la gis léegi léegi daa mel ni seytaane dafa def dafa def tadaxul ni mu ñu xamele woon rek ci sama xutba bee weesoon na ma ko téje woon ci la mu waxoon ne moom fi mu nekk moom mooy mooy jaxasoowul ak benn buur te xam ngeen ni loolu moo yóbbu tubaab yi ci ñu yóbbu ko defe ne woon li li ñu bëgg rek loolu la bëgg fekk moom nguur yëkkatiwu ko moom waxoon na ne di waxasoog buur du génn mukkam du génn mukk itam njubum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca la mu waxoon ca bayit ba rek nee na wax naa bayit boo xam ne mooy ngeen ji seede daa di wax ne kiy dégg yemul ku seede maanaam ki fekkee nu mën a yem ak kay seede waxoon nañ lañ cay wax dangeen déggoon ko li ñu toxalaat ci waxam ngeen xam ne Cheikhul Xadim li tax ma di ko indi génnul sharia génnul diine lu mu wax rek génnul ak génnul diine bokk na ci liñ toxale ci waxam wax na ne képp koo xam ne dangaa weddi ni mbir ci mbiru diine mi nga xam ne dañ koo siiwee nga xam ne lu siiw la ci diine ñu war koo doxal nga weddi ci lu mu mën a doon mel ni tey dangaa wax ne julli day warul dangaa wax ne julli warul wala nga ne nit ñi deesu leen dekkal bu ëllëgee te yàlla wax ne dañ leen di dekkal Seexul Xadim nee na képp ku wax loolu weddi nga yàlla te dañ laa war a rey bu fekkee ne tuuboo gis ngeen moom fi mu taxawoon kon léppam rek lu daan tëral ci shariatul islamiya atteb l'islam daa di wax ne nag li tax wax li yiw yëpp a topp salafi saalih te salafi saalih ci loolu lañ nekkoon mooy mooy gaay e, mooy ni ko sahaaba yi daan defe ak taabiin ak taabiin ak ñooñu ñu leen toppoon niñ daan defe mu ne mu ne yiw mi ngi ci topp salafi saalih yi ñi nga xam ne dañoo dëddu se dañoo dëddu àdduna ñi nga xam ne dañoo muñ ngir seen jëmmi boroom ñi xam ne dañoo wakkilu ci yàlla ngir seen jëmmi boroom nee na ñooñu la ñu xool topp fa ñu yoon nee na ñooy gaa yi yàlla yi ñooy awliyaullahi taala ñooy boroom karaama yi moo xam ña cay dund moo xam ña ca faatu ñooy boroom karaama yi ñooñu wax na ne itam dana araam wax lu dul dëgg ci gént loola day gudd wala ngay wax ci deri nit ñi loo xam ne dañ koy bañ maanaam ngay teg ci deru sa mbokkum jullit loo xam ne dana ko bañ su fekkoon ne doonte yaa nga ca biiram wala néew fi doonte yaa nga ca moom wala néew fi am na ñoo xam ne dañuy wax ne ni ma ko fi yàgg a waxe du ko ko jëw dama ko koy koy wax sëñ bi nag loolu da koy tere nee na doonte ñu ngi fi toog bu leen wax loo xam ne lii ci seenub dara la jëm wala buñ fi nekkul lu dul laa biire wala boo xam leenu lu ñu xamul woon am na loo xam ne dañ koy jaawale ak jëw te du jëw taariful majhul mooy lan xam ngeen ne waa ji ab doxam yépp mooy fu dugg fu ne dafay dafay dafay yàq nga gis muy dugg ci kër sa dëkkandoo nga ne ko woo ko ne ko ndaa ndax waa ji da koo xam mu ne la ah kii de dafay ñëw rek di wax nangam ak nangam ah nangam moytu nangam ci moom loola du jëw ah loola du jëw loola islam da ko yéene waaye moo gën nga bàyyi ba nga xam ne rey na ko nga daan ne ah man de xamoon naa ko maa ngi koy gis muy dugg ci kan xamoon naa ko loolu sëriñ bi nee na loolu lañ ko tere dana tere nee na tere na ngay lor ay jullit ci sa loxo wala ci saw làmmiñ wala ci lu dul ñaar yooyu moo xam ci seen bopp la walla ci seen alal lu dul ci mbirum sharia sharia nag saa bu taxawee moom boo gisee ci téeréem ca jawhar maa ngi cee wax ne dagan na ab jullit lu bëree bëri dafa araam nga def ko ko bu lu dul nag taazir mooy loo xam ne islam da ko war a teg ay yari yoon ñu def ko bu boobaa dañ ko koy teg waaye lu dul loolu ab jullit moom dangay ngay fegu ci moom ci yu bëree bëri wax na ne ba ci yéefar sax sëriñ bi nee na day araam ñu lor leen ñi nga xam ne taxta zimatina ñu ngi sunu suuf kilifteef xam nga bi lislaam di am moom day am wóoru jullit goo xam ne day am ñeneen ñoo xam ne du ñu nekk ci lislaam waaye dañuy nekk ci ron jullit ñi maanaam ci réew mi nga xam ne bokkuñu diine waaye ñu ngi ci suñu diine ñooñu dañ leen a war a wor maal kenn wóoru leen a lor lu dul dañoo fecc kóllëre bu fekkee nag dem nañu nga di sàmmanteeg ñoom kóllëre ñu dem daal di lees daal di fi bàyyi jullit ñi dem jaxasook ñoom di leen jaxaseeg seeni noon bu boobaa nag lislaam day daal di waral nag ah lislaam dal ci kaw ñooñee waaw moom la mënu sëriñ bi wax lu lañ koo fecc sëriñ bi nee na daganul góor guy nuru nuru lu jigéen ki noonu safaan bi itam daganul loolu na ngeen xam ne mbindum sëriñ bi la sëñ mës mës sa bëgg góor guy nuru nuru lu jigéen te gis ngeen ko ci suñu ndaw ñi bari woon na lool wala tàmbali woon nañ ko xay na sax léegi lañuy tàmbalee yeewu waaye dañ daan def lépp lu leen jóge ca xaar ba rek muy bitim réew rek ñu tàmbali koo roy fekk ay jaaro def yu ma xamul yoo xam ne dara baaxu sëñ bi da koo yàgg a tere góor guy nuru nuru jigéen waaw mais sabdu xaadir ku bañoon loolu la ku misaan nga takk ak ceen wala yu demee noonu du am ak yow kii waaw nga xam ne kon ñoom foofu lañ ko tegoon nee itam ni ki noonu góor guy nu euh, euh, euh, jigéen juy nuru nuru góor kala ak si la wax jigéen juy nuru nuru góor loolu la ak bari léegi léegi boo leen gisee da nga taseeg jigéen sax bu dee ci sow doo xam ndax jigéen nga taseel wala góor ndax yëfi góor rekk lay sol loolu itam nañ ko moytu nañu moytu xam ne dafa am lislaam lu ñu tere ñu bañ koo def niki noonu wat sab sikkim walla naanu yi naanu yi sax am nañ ci ay werante tuuti waaye sikkim bi moom dafa araam nga wat ko nee nañ sëriñ bi sikkim sikkim bu gudd la yoroon ba sax da ko daan laxas te mi ngi ko royee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi da ngay gis kilifa diine goo xam ne dangay ngay am ci moom yaakaar mu daa di wat sikkim ba ba mu set wecc ngir bëgg a doon gone waaw loolu fu mu ko teg tegu ko ci ndigalal sëñ bi tegu ko ci fenn sikkim sunna la alixiyatu sunna sunna la boo xam ne sunna bu wér la boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko daan digle saxaaba yi noonu la ñu meloon daawuñu ko wat daawuñu ko laal daan daawuñu ci dagg dara moom sikkim moom daawuñu ci dagg dara loolu kon ñu xam ne itam jàngaleem sëriñ bi pour ma xamal leen ne sëriñ bi bindul dara ndax nit ñi wax ji dafa bari ñu xam ne bindul dara lu génn sharia yooyu yëpp da koo indi wax na ne ah, walla ngay jëfandikoo euh, euh, wurus kooku dañ ko tere ci góor wala xaalis wala yérey sooy yoo xam ne xam nañ ne sooy dëgg-dëgg la piir la góor gi di ko sol kooku dañ ko tere nee na Euh, ak lépp loo xam ne am tux la ni ko naar yi daan defe nga xam ne seen gënn yooyu ñu daan jël ñu koy tuddee gënn li ko tux nee na yooyu dañ ko bañ dañ koo bañ ni ki tux ni ko am tux noonu la ko wax nee na li gën mooy nga bàyyi lépp ren lépp bu ñu wax ne tux mii moom daganoon na mii daganoon ndax naar yi dañoo dañoo ñeme dañoo ñeme yàlla fi ne sëriñ bi kenn melul ni moom ci ñeme yàlla naar yi ci ñeme luñ ci mën a nettali danoo bi ñu nekkee azhar mooy azhar gi di ko sëriñ Murtala di doog a ubbi naar yi ñu fi njëkk a indi da cee am kenn koo xam ne Cheikh Ahmad la tudd da daan tux benn bis ma laaj ko ne ko waaw waaw tux mi tux naan na mu ne ah bu dee yéen ñi nga xam ne amu leen dara de moom dëgganul si ndax amu leen lu ngeen liggéey waaye bu dee ñun moom dañ koo sit ci ñun xoolal boobu wax ah? boobu fan la fan la tegu yàqale yàqale lislaam ba bëggul moo taxoon suñu talaat bi ñuy doolu ñu yóbbu leen ñu dëkke mbàkke gis nga ñoom ni ñu fonke ndigalal sëñ bi yóbbu leen ñu dëkkee mbàkke xam dañu daan toppatoo ñuy dem mbàkke am na suñu tux waaye dañ am ko daan def ci ko yooyu xeetu yooyu sëriñ bi nee na dara baaxu ci moo tax ay njabootam tere ko fii ci Tuubaa tere ay tux tere lu demee noonu lépp ñu tere ko sëriñ bi fekk na mu tere ko bu yàgg sëriñ bi na lépp luy luy muur xol sëriñ bi nee na baaxul nee na donte liquide la wal maa eewu menu nee na la boo xam ne ndox la nga naan ko muy muur sa xel sëriñ bi nee na dafa araam waaw nee na donte sax soow la moo xam ne dafa forox ndax wax nañ soow bu foroxee ba ëpp soo ko naanee da lay màndal sëriñ bi nee dafa araam nee na daganul takk jaaro xaalis lu ëpp ñaari dërëm maanaam jaaroo bi na tolloog ñaari dërëm bu mu ko wees nee na daganul ngay photo ay ndundat yoo xam ne am nañu jëmm yoo xam ne seeni kem a ngi dund bàyyi sax leneen ñi moo ko gën loolu ñu jub léegi média dem na ba xam àgg foo xam ne léegi ñu ngi foto ñu ngi def yu ne ma su koo bañ bu fekkee nekk dafa jëm ci lu baax waaye ñoom li taxoon ñu di ko bañit gis nañ ko léegi li taxoon ñuy bañ taswir suwar bari na ci naar yoo xam ne mosuñu bëgg ñu photo léegi ba ci sëriñ bi ngeen ko ay photoom bëriwul kenn liñ ci liñ ci mën a génne ci photo bëriwul ndax mësu nangu na ci naar yoo xam ne damay bañ a tudd mu gudd waaye bu ñu mësaan dugg ci xaa bi comme nii tey duñ ko nangu dañuy wax musawir yépp nañ génn waaw ndax lu bëree bëri xañ na ci loolu waaye nag comme jamono dem na ba ci la ñu bari di xamee yàlla na def luñ ciy liggéey mu nekk mu nekk yoon ah luñ ciy liggéey rek teg ko ci loo xam ne saa bu àggee àgg ci xolug jaam boobu mën caa gëme yàlla waaye bu ko xool mukk mu àgg ci sab xol nga ne cam mu yàq di xew léegi kon sëñ bi dafa tere loolu tere na itam nga wéete képp koo xam ne fitna day joxe ci moom xool gi nga koy xool fitna day joxe ci moom wala wax gi nga wax moom fitna joxe ki tere na loolu tere na alaatu lahwi wa wa awaani zahab alaatu lahwi mooy yi ñuy musique yi ñuy musique ngeen di ko déglu tey gone yi ak jigéen ñi sëriñ bi da koo tere de moo tax sëriñ bi tere woon fii am tëgg bu ñu defee ne damu tere tëgg waaye sañ ngaa léegi nag ubbi sab rajo te xam na rajo yoo xam ne yooyu rek la ñuy te ñu ci ëpp ñoom lañuy déglu damay wax ne sàmmalaguñu sëriñ bi ni mu bëggee dëkkam bi te ci lii rek lañ ko mën a xamee ñu ñiyee leen ni bëggee dëkkam bi mooy mu tegu ci ni ko bëggee wallahi suñ ko ne deful danañ mos ay coon ku xam ndax ndox mu bari nii lu mu doon ndax ñépp ngi ci yoon wala nekkuñu ciw yoon ku baax duñ ko jege de doo ko jege mukk nekk ci lu bon safaan faw mu ne la nag sori ba yal na yàlla def góor góorgóorlu ci sëñ bi bu baax a baax góor góorlu ci ay ndigalam bu baax ah pom yi bari na musiciens yi léegi moom rek la ñuy déglu xasaay ñu ngi ko fi bàyyi yéen ñu ko bàyyi nga xam ne gis nga ko léegi dem nañ sax ba nga xam ne ñiy jàng xasaay xasaay bi nga jàng mu sell xam ne du am yëngu léegi ci nga xam ne moom mooy jàng xasaay kee di tëb di fecc fee kee di def nii defe nañ ne loolu sëñ bee ko digle wallahi sëñ bi déglewul loolu sëñ bi xasaay di nga koo bind mu sell dugalu ci dara noonu nga ko war a jàng njàng mu sell lu dara dul rax poddul rax podd ci rax leneen du ci rax ndax xasaay bi ay wax la ay tagg la yoo xam ne leer la guy dugg ci xol boo ko bëggee boolee comme fecc yaa ngi koy yàq ah yaa ngi ko yàq yaa ngi koy yàq kon noonu la sëñ bi digle nee na kon njëfandikukaayu wurus muy nga jënd ay am nga am nga xaalis rek ne naa jënd palaat bi or la nangam kuddu gi or la nangam or la def ko moo xam jigéen la moo xam góor yooyu dafa araam ci ñoom ki am na seet li muy def bu dëppook sariya mu def ko bu dëppoowul ak sariya bu mu topp tubaab yi nga xam ne ñoom gëmuñu loolu waaw buñ la ko mayoon sax nga leen man kat lii daganul ci man daganul may lekk ci palaat boo xam ne or la wala kuddu goo xam ne or la wala nangam ak nangam jullit bi dafa am luñ ko ordale mu war caa dem sëriñ bi kon fii rek la nekkoon nag di nee na nañu diggal gone yi ci julli bu ñu amee juróom-ñaari at nee na bu ñu amee fukki at nañ leen cey dóor te fa ñuy tëdd ñu teqale seen tëdduwaay ndax noo ngi sàmm loolu léeg-léeg am na ñoo xam ne zuruful maïcha bi maanaam dunduwaay bi moo leen jàpp bu mënuñu ko waaye buñ ko mënoon itam seen i doom duñ leen teqal duñ leen duñ leen boole ci seen barab waaye nag mënuñu ko buñ ko mënul itam nag nañ fexe ba ku ci nekk am sa mat la bopp ndax sharia dafa am lu mu digle te c'est-à-dire dafa maalu dafa bañ ëllëg ñu ñu ne ñu ne ah lii de xamoon nañ ko ndax lii su amee lii mën na cee soq ko balaa loola rek sharia da koy daal di gàntal nee na kon julli googu nañ koy digal ñooñu bu amee fukki ñu dóor ko ci nee na su fekkee ne nag ki ki ñu kenn euh, ci sa njaboot daa ci am koo xam ne jot na ci majeur na ci ba noppi lank julli nee na kooku dañ koy dañ koy yeexe ba dañ koy xaar ba waxtu darura yi jeex ni mu ko waxee ci téere sharia rek nga ne ko jullil di ko ndaxtaan ba waxtu darura yi ba darura yi dugg ba darura yi jeex ba maal fatiha ba fatiha ñaar rakka yi comme ni mu ko waxee foofa nee na su fekkee ne deful nag dañ koo war a rey ci géttal ah kon nag xool leen sëñ bi fi mu taxawoon ci julli kon ku fonk julli la de boo kenn fonkaloo julli ñi koy dégg bokkuñu ci yoon wit nañu xam ne sëriñ bi fii la taxaw lii dafa jar di wax ndax koo wax xam ne day naan julli nangam nangam sëriñ bi moom foofu la taxaw ni yonent bi fonke woon julli ak saxaaba yi ak ñu baax ñu noonu la fonke julli noonu la ko diglee boo ko deful itam maandul teel saw làmmiñ waaw kon loolu ci njàngalem sëñ bi la comme ni ni ma ko mën a waxee ni ma doon waxee nag bés bu ne ñu gën a jariñu ci nje ci sëriñ bi ci am njàngaleem suratu muhammad muy allazina kafaru wa saddu an sabila adalla amaluhum والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئات وأسلط بالهم sëriñ bi day toog mag ñi bu ko jàngee ba noppi ne leen ndax mooy bu fu ngeen gisee ku baax Ah, ne fu ngeen gisee ku baax na ngeen ànd ak moom te jegeñ ko ndekete kon booy xaritoo na nga seet ku baax nga xaritoog moom ndekete gën jaa xarit mooy nga seet ku baax dem xaritoog moom bul xaritoog moom ngir alalam bul xaritoog moom ngir darajaam dong bul xaritoog moom ngir askanam wala dara waaye xaritoo moom ngir mbaax nga sëriñ bi loolu la wax foo gisee ku baax nee na na nga ko jege waaye foo gisee ab kàccoor ak num mën a mel nee na bu ko bëgg te bu ko jege bu ko bëgg te bu ko jege nee na foo nekkee ci ak mbaax it ba nga yëg ne yow lii li nga nekk lu baax la nee na nang ca sax bu la ca kenn génne sëñ foo yëgee ne yaa ngi ci mbaax nee na nga ca la ca kenn génne nee na su la soo àndee kenn mu bëgg laa xëcc jëmeli ci ak kàccoor wala lu baaxul nee na nang ko daw sëñ ci waay digle lii de mu ne foo saa boo gisee ab kéefër yéefër ak lu mën a am ak lu mën a tollu bul defé né man na la lool ñu nak loolu mooy tollo, musiba léegi nee na yéefar bi nu mën a toll ak lu mën a am bul jàpp ne man na la lool ñu ne ko sëñ bi lu tax mu ne ndax ku waru moom ku wor rek ku wor rek lay nekk fu mën a nekk ndax yéefar bi dafa waru waru gi mu moo tax wax ne nag na nga rafetal sa njortu ci sa borom bul ñaaw njortu ci sa borom mukk sëriñ bi mu daa bëgg ñuy rafet njortu ci sun borom yaa ngi def lu baax rek rafetal njort bul ñaaw ci sa borom feeg yaa ngi ci lu baax li nee na saa boo jortoo ne yàlla mën na lépp yàlla dana la won ne mën na lépp maanaam nga jàpp ne yàlla day lépp mën na ko nee na borom dana la won ne mën na lépp waaw dégg nga waaye nee na saa boo jortoo leneen lu dul ne yàlla mën na lépp yàlla ca la nga jort dana la ci won kàttanam allahu akbar la nga jortu dana la ci woon kàttanam lii waxi sëriñ bi la bokk na ci aaya bi ñuy wax yaa laytani kuntu turaaban yi nekk ci suratu naba yi nga xam ne bu ko rek yëfër yi dañuy wax ne ak a neexoon yàlla ñu def ma ma nekk suuf bu ëllëgee yéefar yi loolu la ñuy wax na yàlla ak a neexoon ma nekk suuf sëriñ bi daal di wax ne ni mu ko firee mu ne mbindeef yépp ay tukkikat lañu nee na ñun ñëpp ay tukkikat lañu ndax loolu xam nañ ko xam ne nañ ñun ñëpp musaafir lañu dañuy tukki fi ne fi ñu nekk dañ fiy tukki rek te loolu bis bu nekk ñu ni ñu di koon day ni koo xam ne day ci këram ba yàgg nekk tuba keneen mooy moom kër gi ñu toog ab diir keneen at kër gi ngay laaj ci ko njëkk moom ñu ne la ah kooku de wax dëgg moom faatoo yàgg na lool xanaa kooku kon bu xamoon ne day tukki na teel a xam ni muy def sëriñ bi nee na ñëpp dañuy tukki te yowmal xiyaamati fa la ñuy teere anna al xalqa musaafiruun wa yowmal qiyaamati muntaha safarihim yowmal qiyaam fa la ñuy teere sëriñ fa la seeni tukki di yem sëriñ bi neen suñu àggee yowmal qiyaam nag fal abraaru fi naim ñu baax ñi dañ leen di wax neen ah kaay leen nii yéen yéen asxaabu yemin ci xéewal yi ngeen di ànd wal fujjaaru fi jahim kàccoor yi ñu ne leen ay eh, taxawe leen ne yéen xam ngeen fi ngeen jëm tey nee na mu des baahima yi baahima yi yàlla def leen suuf sëriñ bi nee bu karoogee baahima yi yàlla da leen di def suuf nga xam ne dootuñu ñu nekkati nee na su jamono boobee nag jamono boobu ñu di leen def suuf ci la yéefar bi di wax ne yaa laytani kuntu turaaban aka nekkoon man ma ne ma nekk suuf ni ñu def bàyyi may ñu def ko ko te dootu ko mën a nekk moom dootu ko mën a nekk wala sëñ bi ni mën a ni mën a firi alquran nee bu keroogee nag yéefar bi ci lay wax ne bu gisee ñu def bàyyi yi yey suuf ci lay wax ne yaa laytanii kuntu turaaban bokk na ci am njàngaleem itam moom Seyxul Xadim li ñuy wax nga xam ne tubaab yi li ma leen di wax ñu moytu li ñuy indil yu baree bari nee gaawtu baaxul gaawtu sëriñ sëriñ bi dafa ne gaawtu léppi gaawtu ci saytaane la ba mu des juróom yi mu leen di bëgg a wax juróom yi na ngeen ko jàpp juróom yi nee na soo amee doom ju jigéen su matee na ko teel a wutal boroom kër ju mu naw lan teel nee na juróom yooyu loolu moom lu ñu war a gaawe la wara si ko yeer léegi nag xam nga loolu la ñuy yeer léegi li ko waral mu ne ñu ne léegi ba ci njàngale mi léegi ñu ne kii boo ko mayee léegi day yàq njàngam day def nangam ak nangam ah xam nga loolu loolu mooy xew léegi te sëñ bi nee na da nga koo war a gaaw a may ñun ñun damay wax ne ñu doxal suñu nañu dox nañu xool ni ñuy doxal suñu suñ suñu suñu kii ñu doxal comme yow boo ko mayewul bu demee feneen boo ko bàyyee man day doxali soxlaam seetal kam bëgg nga may ko ko bu keroogee ñuy ànd di jàngi mu di ko gunge ñuy ànd di jàngi ba mu am li mu war am loolu koy mën naa nekk ndax yeneen réew yi mën naa nekk am na ñoo xam ne dañuy yor seen soxla taal seen oto yóbbu ko ba fu ñuy jàng ñu wëlbatiku ñoom itam dem fa ñuy liggéeyee lu ci ne waaye bu ñu leen teel a maye nàngam nangam te bu seytaane duggee ñoom duñu wax dara ah sëñ bi nee na benn boobu ak ban nee na teel a fay bor gaawe ko dara newu ci bor boo ko amee nañ ko gaaw a fay ndax nit ki dafa xamul fu muy faatoo moo tax te nee nañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam am bor ñoom ñii noonu la ñuy def dañ xëy na ba nañ ko léegi waaye dañ daan yonent boobu ñëwee danaan danaan ndax am na bor ñu ne waaw ku koy fay ci saxaaba bu kenn waxul ne maa koy fay moom sallallahu alayhi wasallam mu ne kon nag gàddu ñaata la ñoo xam ne gàddu naa fay ko doo ko kon bor gaaw gee say baax na bu ko jàpp rek defe ne yow sa poom la dañ lay lebal nga daal di koy jël lekk rek dem yoon dem sa yoon wala nga def ci lu la neex bu ëllëgee mi ngi ci sa kanam danaa fi dégg sax ay ñuy war a topp ñu fi nekk ñi nekkoon ci réew mi yore ay kii waaye ñooñu moom ñoo xam fekkee ne yow waxuma bor waaye attan ngaa jël alal yi am réew lekk ko waxuma nag bor suñ bi nee na gaawee bi ci des mooy ku faatu nee na ngeen ko gaawee bu leen ko fa xaar noonu ne gaawe gi sëñ bi nee na gaawe gi dafa baax léegi dañ ko faatu ñu ne ah dañ ko fi teg ndax am na koo xam ne ñëwagul ñu denc ko fi te yéen sa daa ne bu bu bu xëyee faatu bu mu yendu fu ci bàmmeelam bu gontee faatu bu mu fanaan fu ci bàmmeelam allahu akbar ndax bu dee ku baax bu ngeen ko téyee mu ngi leen di móolu yéen ko ngi yeexal ay xéewalam bu dee ko bon malaaka yaa leen di rëbb ndax yéen a ngi yeexal seen liggéey ba xam ngeen ñaar yooyu bu dee ku baax xéewal yi mu war a xéewloo yéen a ko téye fee rek naan nañ xaar diw bu dee ku bon malaaka yi war a liggéey ñu ngi taxaw di xaar di leen moolu rek moo tax na gaaw na gaaw sëñ bi nee na bi ci des mu ne juróomeel bi sëñ bi nee na tuub saa boo defee bakkaar bul xaar bul ne naa xaar ba gannaaw suba naa xaar ba weer wi dee wala damaa ndaw naa xaar ba nangam sëñ bi nee na nga gaaw tuub ko daal di wax ne lii nag ñu ngi ko toxalee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne lu bind bu la bëggee yéem rek day wax lii ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laa ko toxale moom lay wax ne wa kullu ujlatin min alcheytaani lakinnama xamsun min arrahmani tazwiju bikrin adrakat kuf an ragib wa misluha xadaau daynin qad wajab tajhisu maytin wa xiraa ah jéggi jéggi naa benn mooy mooy gan bi ci des mooy gan wa xiraa day fi nazar gan bu wàccee gan bu wàccee sëñ bi nee na gaaw rek teral ko gaawal andi ndox mu sedd mi gaawal lalal ko basan yi gaawal indi loo ko kii waaye ndax gan day nettali gan day nettali sëñ bi nee na gan nga nga teel koo teral dafa baax day tax xelam dal waaye bu ñëwee toog fu ne muy comaytu ah man de moom baa mu ne nañ ma may ndox ma naan xam nga ko wax dëgg yàlla ah doy na waar sëñ bi nee na yooyu kon dañoo war a tey eh, eh, eh, yooyu dañ leen a war a gaawee ak tuub yàlla na nu yàlla defal dégg ak topp Serigne Touba daal fii la nekk incha allah dana leen di tibbal ci ay njariñam di ko andi ndax doy na sëkk yóbbuloo doy na sëkk wax li ñuy wax doy na ci sëkk ñu wax ko ndax loola la doon def daan ko bind ci ay xalimaat di ko fi bàyyi ngir nit ñi topp ko waaye ñu ngi ci yeneen ñu ngi ci yeneen i wax ñu ngi ci politique bi ñu ngi ci yàq ñu ngi ñàkk fayda يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين